Sëriñ Saaliw waaye Cheikh Bamba tey jii ci suuf si le te Cheikh Bamba mooy yoneen ba dëggal leen ko le sëriñ bu ma sëriñ ni Cheikh Saaliw da manal fii manal la fee Saaliw sëriñ am ba la ca am Serigne Saliou ca gën Mbacké daaya te manu gën Serigne Saliou moonu day ci ji jamono am ba am jeex la ca gën am Serigne Saliou ca gën Mbacké dalay manal fii manal la fee Serigne Saliou xayrul anbiyaay di sunu bi yonen babara ñaane lan ku tëti Serigne Saliou ku sopp Serigne Saliou xayrul anbiyaay moo di sunu bi yonen babara ñaane lan ku tëti Serigne Saliou déglu leen tuuti tey nu way Serigne Sall sant سنت ورنا كل سنت لين سرين سال يقول لين توتي تين وي سرين سال سنت ورنا كل سنت لين سرين سال لا في كذا متخو ما كباي ينون له سني بمام لمنا يلا جابوا له لا في كذا متخو ما كباي ينون له ñibbi moom lu mu ne yàlla jàpp loole boo fi dégguñu na yàlla jox na koy mbood boo demee ca moom mu naa la seex sala yi njiit koo fi dégguñu na yàlla jox na koy mbood boo demee ca moom mu naa la seex sala yi njiit te la naw jariñu moo li ëpp maanaa jara àndal bilaay moo jara Serigne Sala jara àndal. bilaay moo jara àndal. Serigne Sala jara àndal. bilaay moo jara àndal. loxo yi Serigne Sala jara àndal. bilaay moo jara àndal. Serigne Sala nu àndal. bilaay moo jara àndal. Serigne Sala nu àndal. bilaay moo jara àndal. mboolem ñi dooni saalihiin ci sowu jant mbaa feneen. Mm.